gannaaw bi ñu rejeté liste national bu waa coalition Yewwi Askan Wi talaata bi ñu génn yemook fanweeri fan ak benn ci weeru mai doonub xibaar bu bàyyi ko ca ministère de l'intérieur ba tax waa coalition bi woote ci ab ndaje ci àllarba bi ñu dëgmal yemook juróom-ñetti fan ci weeru juin bi fële ca place de la nation ñu amaloon ab ndoxantu tàllal ñenn ci askan wi suñu micro ngir ci wax ci seen xalaat waaw Sonko de moom réew mi moo ko ñor ah jamono bi fi mu toll nag dafa métti ci borom kër yi réew mi métti na événement bi jub si na am na ñoo xam ne nii dafa métti métti di fukk nit takk rek weesu na ko bu nu añee du ñu reer boo ko waxee sax duñ ko gëm réew mi métti na ni ñu yàq xaalis bi ëpp na. na ñu xoolaat suñu bopp ñun ñëpp ñu xam ne réew mi gars yi ñoru leen ah. dañ leen war ñoo rejeter seen liste boobu dañ leen war dañu war a jël seen liste boobu lépp doon benn daal ñu waxtaan seen biir daal boo ñooñu tamit am ci yé gis seen bopp daal maanaam daal parce que national la te tout le Sénégal daal loolu la daal. non du yoon manifestation suba bi du yoon tamit mun nañu arranger seen biir comme bu ñu arranger problème du am coow du am manifestation du ci am c'est simple. lu raw loolu mun na faa am parce que ils sont prêts déjà te yàgg nañ koo organiser yàgg nañ koo wax fu mu toll nii. waaw li nga wax dëgg la suba manifestation bi waaye pour man de gars yi dañoo war a marché bu yàgg lañ ko doon def sax gis naa ne dañ ko yéex a def sax seen kii ba bañ ko wootee boobu lañ jàpp naa ne kon ministre de l'intérieur kon du ko invalider ndax moom euh, kii lu mu kii lu mu bàyyi bu lu mu kale bu yeewu askan bi bu affaire bi ñoom ñaar ñoo bokk même erreur daa def lu ko neexal ak lu nekk Macky Sall rek loolu la def non bu yàgg dañu ko yéexee sax ñoom bu yàgg lañu ko waroon def non 100 pour cent sax waaw ñu gën ne xam ne askan baa ngi seen ginnaaw te erreur bi ba léegi moom ba leen dalati mais comme que waa APR def nañ ko rek bu ñu jàllee moom a def ñoo war a xam seen bopp te moytu maanaam politiciens yi seen bopp rek lañ nekkal maanaam ndaw ñi ñoruñu leen de ndaw ñi nañ toog seen kër ci seen pegg waajur yi te liggéey loolu mooy solo. Ousmane Sonko li ma koy naase message mooy dëkk bi jàmm la bëgg am réew ci jàmm lañ koy wut soo ko bëggee yoree jàmm da nga koy wut ci jàmm boo ko amee yor ko ci jàmm waaye am réew kenn du ko wut ci fitna fitna baaxut. man daal jàngat mi ci jël mooy. réew mi fi mu ne jàmm lañ soxla dañoo sonn dañoo xiif dañoo mar fi mu ne képp kuy lijjantil loo xam ne sunu doom yi muy seeni morom dinañ am ci lu ñu jàpp agression bi wàññeeku sunu saag ñuy këf ñun maire yi wàññeeku ñun ci loolu lañu wax bu dee nag dañuy woote manifestation nañ fekk dañu am ñu leen encadré ba nga xam ne saay-saay si duñ ci rax ndax chaque jour saay-saay si ñoo rax di ci def li ñuy wax te def la ñu ko ciy wax te loolu du suñu arrangement ndax lépp suñu kaw lay dellusiwaat ñun parents parents yi. mooy nañ bàyyi rek yëf yi la rek nañ noddu bu ñu noddee ku yàlla may nga jël man loolu rek laa ci gis ilimaan daal neex na baat jàkka ja noddu na nag na dem jiite ji ku yàlla may nga jël ku mu maye nga del sa kër toog ndax lu dul jeex amu fi lu dul jeex amu fi lépp day jeex nguur nu mu neex neex day jeex nu mu yàgg-yàgg day jeex ku yàlla fal di nga falu mais ku yàlla folli di nga folleeku nañ teg lépp ci loxo yàlla man gannaaw gis-gisu ñenn ñi ci askan wi amal ndaje mi lu war la waaye nañ ko def ci jàmm.